leader ñu ci kontaan lool di ci bég waaye aussi di jéggalu ci quelques minutes de retard yi nga xamante ne am nañu ko euh, ñuy euh, nuyu aussi suñu mbokku internet yi nga xam ne via Facebook ñoo gi ñuy topp ak yeneen plateforme digitale yi nga xamante ni leen nii ñi ngi ciy topp programme RTS euh, loolu ndoon suñu bégte ak contentement bu mag euh, tey nag li ñu nar a waxtaanee continuité rek lay doon ndax xam ngeen ne ko ne bokk na ci euh, li nga xam ne xew na ñu koy ràññee lu bari bari muy effondrement bâtiment yi nga xamante ni leen nii tey dañuy dalal suñu mbokk ingénieurs yi ngir ñu def ay jàngat jëmale ko ci wàllu woowu naka la ñuy mën a def ba saafara ko ba dootul mën a amati ndax bari na ay jéye yoo xam ne daf koy daal proposé ñu dalaloon fi rek Ibrahima sekk moom ingénieur la mu amaloon benn étude bu am solo boo xamante ne jëmale na ko ci wàllu bâtiment yi waaye tey dañuy dalal keneen mu nekk monsieur Gamdigna moom itam mu nekk ingénieur géotechnicien euh, pour mu waxtaanee euh, li nga xamante moom moo di euh, sol bi ñuy tabax suuf si nga xamante ne nii moom la ñuy tabax étude ya ñu ca war a def ndax xam bokk naag norme yi nga xam ne ñoom en tant que ay spécialiste moom la ñuy teg yooyu noonu yëpp aussi sensibiliser ñiy tabax ñu xam aussi naka la ñu war a def ba seen tabax mën a mucc ayib waaye ci biir loolu tam dinañu dalal keneen mu nekk benn jeune moom ma ngay entreprendre ay mbir mu laay la daan ngeen dégg sax turam ci man wax lu ndax xam ngeen bi ñu euh, fi sol yëpp doon supporter lion yi ko doon solal mu nekk styliste El Hadji Abdou Aziz euh, Moulay konate moom moom la dalal tey ngir waxtaaneeg moom wàllu stylisme mais aussi wàllu création yu am solo yi nga xamante ne en tant que jeunes ñi ngi koy amal ci seen liggéey ki may jàppale tey nag ci waxtaan bi nekk Assane Faye moom artiste la waaye nee naa ci kër gi la bokk ndax day ñëw yenn saay di ñuy wéttali euh, di waxtaan ak ñun waxtaan yu am solo yoo xamante ne nii askan bi daañu ci jëlee njëriñ lu baree bari waaye damay dalal sama invité am mbégte loo recevoir ko sur le plateau mu nekk monsieur Gam di ñaaw

immeuble wala kër tànk yi li nga xam ne moo koy téye ci suuf si la nekk donc bala ngaa def fondation il nga saytu suuf si pour xam suuf soosu nan la tëddee pour mën a xam exactement fondation bi ngay def nan nga koy defaree. d'accord loolu nekk lu am solo parce que dañuy wax sax ne loolu mooy base bi ndax balaataa tabax di ñëw première étape bi mooy ñu étudier sol bi ñuy tabaxee ndax am euh, nekk na ci norme yi mu war a nekk ndax mën na euh, encaisser tabax ba ñu fa bëgg a def loolu dafay doon lu am solo daañu ci dikkaat ak yow ak leeral yu ama am solo di fàttali ne tey la lundi euh, may jéggalu ci jumte boobu noonu waaye di dalal Assane di am mbégte ak contentement bu mag recevoir ko tey ci plateau. hôpital bi ndax moom nee leen ci kër gi la bokk. walaay jéy ma sëriñ si jéy Fatick Penda Man Ndiaye sama xarit. Mhm. li may faral di wax rek rafet te jaayul bu la neexoon jaayul taar yàlla def na ko. Mhm. loolu la yàlla dogal. Mhm. ñu di nuyu ingénieur bi nga xamante ni. maag Mouhamad. nit ku yàlla baaxal li may faral di wax njàng njàngaan ku mokkal bersa daaro te it eh, njàng du ànd ak puukare métier du xëy xëy neex. dëgg eh, boo ñu joxee ku nekk lañ la war a jox rek. liñ nañ donné à César ce qui appartient à César. da lépp day daal di leer. wallaay ndeysaan di nuyu suma rakk ji nga xamante ni mooy. Abdou Aziz mm-hmm. nee naa ko foog nga sañsel moom <laughs> waaw ndax suñu génn baax na c'est la mënta ñàkk mënta ñàkk kontaan rek <laughs> na moon maa la raw maa la lu bëree bëri Moussa euh, ma ne la Moussa sax sama xarit boobu tam Moussa maa ngi koy nuyu bu baax Moussa Mbaye ndax moom itam ku ñu tàmm di gis ci plateau bi la ma nga diwaanu ndax moom ak soxnaam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax tey nag Assane moo la fi uutu en attendant que ngay ñëw waaye ñu daal di wéyal rek daal di dalal euh, Moulay moom itam ñuy am mbégte lool man daal xam naa ne la simplicité moom c'est de moom laax moom mooy génn ci moom donc mu laay nuyu naa la <laughs> fay naa la maman di nuyu waa Sénégal di leen wax salaamaaleykum di nuyu àddina donc euh, voilà mhm. maa ngi tudd Moulay Abdou donc tey nag ma ñëwoon ci kër gi nga xam ne mooy ndeyu télévision yi RTS donc voilà di rafetlu ko di ko rafetlu trop di nuyu tamit euh, sama tonton yi sama grand yi voilà Euh, macha allah <laughs> ah loolu nag dafay doon lu am solo dañuy bég lool di la recevoir sur le plateau. Mm-hmm. Euh, ñuy fàttali ne rek euh, jeune entrepreneur yi ñoom ñoo moomee lënd bi ndax à chaque fois dañ leen di dalal di fësal seen liggéey mais dañ leen di dalal aussi di xool seen liggéey boobu la ñu ca namm pour seen ëllëg loolu noonu yëpp ñu waxtaanee ko ci la chaîne leader ngir yokk leen doole yokk leen visibilité mais gën leen wan ne que ne kër gi seen moomeel la te ci ngeen bokk ci biir loolu nag dañuy dem soobu ci waxtaan bi suñu ingénieur gën a waxtaan ak moom ndax dafay baax comme ni ñu ko waxee ci njël benn euh, tey bu ñuy tabax ñu saytu fa ñuy tabax ndax xam tabax mën na faa nekk donc loolu noonu yëpp dañu ciy ànd ak suñu réalisatrice Coro Samb dem ci élément boo xamante ni leen nii dina mën a euh, firndeel suñu ay wax ñu dellu si waat ci plateau bi dalalaat ingénieur bi dañu leen a tàggat ngir ñuy jëmmal ay bâtiment wala tabax yu yànj lépp ngir bégal askan wi bokk na ci seen liggéey itam di digle ak saytu mën na nekk espace pour euh, kër gi nekk itam benn béréb pour liggéey. architecte bi mooy ki nga xam ne dina xelal ñi bëgg a tabax architecte bi nag moom artiste la ci liggéeyam. wante liggéeyu architecte yemul ci loolu rek. fokk nag ñu xam euh, yaatuwaayu néeg bi wala salon bi wala fi nga xam ne moom la ñuy wax espace vert mu di ay jardin ñun nag suñu liggéey mooy di xelal nañu ci loolu. dina ciy baax lool ñi bëgg tabax seeni kër. di xel di seeti architecte ndaxte bu ko defee architecte bi dina ko mën a xamal yoon bi mu war a mun a jaar ngir moytu lépp lu jëm ci jéya yi ñuy jànkonteel ci tabax kër wante di jara xam mooy li wuutale architecte bi ak kii di dessiner plan yi liggéeyu architecte nag dafa am njëkk tabax dafa am yoon yoon woo xam ne képp kuy architecte mënu koo jéggi mbaa sax jalgati architectes yi nag am nañu kuréel bu leen boot ñu duppee ko ordre des architectes bu ñu ko xayma toll na ci téeméer ak juróom fukki architecte ñi ngi liggéey pour fexe nit ñi nekk ci conditions yi nga xam ne daal moo gën a jaar yoon fexe daal ba nit ñi bu ñu nelawee nelaw ba yàndoor wante fii ak amul lijaasi architecte bi yoon mayu ko muy tabax tey nag école architecte bi amoon ci Sénégal tëj na ay buntam li fi des rek mooy école privée yi juddu ngir wóotu tàggat wi looloo waral sax ñu nemmeeku ci ay jafe-jafe. ni ko gisee nii euh, jot ci marché public bi dafa jafe lool fii ci Sénégal. bu ñu ko saytoo ay bâtiment yu bari dañuy xel di daanu li ko waral pour ñenn ñi mooy jot na ñu delloo mbirum tabax architecte yi. kër yi ak taax yi nga gis yëpp ñu daanu fii ci réew mi dafa fekk rek euh, dañu nattul ni nga xam ne noonu leen leen war a natte kuréel gi boot architecte yi jàpp na ne ñàkk xam nu ñuy tabaxee rek moo waral bâtiment yooyu di daanu nguur gi dafa war rek di jege kuréel gi nga xam ne moo ëmb architecte yi ngir rek di leerlu ak a xeltu ci lépp lu jëm ci wàllu alam bi ak wàllu tabax tey nag architecte yi jàpp nañu ne ci wàllu tabax bâtiment bu weesoo ñaari étage rekk laaj na xaatimu architecte bi Euh, loolu nag nekk élément bu ama am solo ñu daal di ñu koy defal euh, la cay wundu nag mooy que ne tey euh, architecte yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ingénieurs yi ku ci nekk am na sa wàll wu am solo boo xamante ni leen nii war nga koo def ci bâtiment bi nga xamante ne nii wax nañ ko teg sur place li ci am solo nag mooy tey lëkkaloo bi nga xam ne dina am ci seen diggante parce que munu cee ñàkk ndax mbir mi continuité lay doon bu ngeen dooree ñoom ñu àggale ci plan ba nga xamante ni leen nii ginnaaw yéen bu ngeen détecté ne sol bi wax dëgg yàlla baax na lañu fa bëgg def sol bi mëna ko recevoir té du indi ben euh, jafé jafé à long terme donc ñom aussi ñoy ñëw dessiner plan bac euh, yu mel donc tay buñu ñëwé ci étude bi d'abord ndax loolu moy base bi ñi ngi kay wax manam sol bi ndax am euh, sol bu bu deugër la bu bu am ndox la sol bi ndax dafa ban bi baax na yooyu noonu yëpp noonu fa la ñi ñëk a ñëw pour xol ba xam ingénieur bi tay bu waré def étude de sol lan moy doon critère yi wala ci lan lay basé wu waaw maman li nga wax dafa am importance Moi, secteur au BTP vous bëri ay acteur architecte bi acteur le, maître d'œuvre bi acteur le, am na bureau de contrôle am na bureau d'étude ak entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy def liggéey bi tey bi ñu waree commencer projet li njëkk li ñu war a def mooy étude géotechnique bi géotechnicien bi mooy ñëw aussi site bi saytu suuf si def ay sondage manam am ay euh, outils yu bari ñu wara utiliser ñu mëna utiliser pour xam suuf ci nan la mel maanaam dañuy gas suuf ci jël suuf ci yóbbu ko si suñu ay laboratoire yo xam yu xarañ la yoo xam dañ ko fay tester dafa mel ni nga jël tay euh, prise de sang dem yóbbu ko ci laboratoire pour tester non li ñuy jël defee suuf si yóbbu ko ci suñu laboratoire mhm. def ay test def ay calcul pour xam exactement lan moy capacité suuf ci d'accord tey boo nekkee Sénégal nga nekk nga bëgg tabax Parcelles Assainies mhm. wala nga bëgg tabax Ngor Almadi wala nga bëgg a tabax Diamniadio suuf si dafa wute donc suuf su nekk ak li nga fa tabax ko adapté par rapport ak suuf si nekk fi nga fi nga bëgg tabax sa projet d'accord ute suuf soosu noonu lan la de lan moo tax suuf su nekk bir Senegal, passé lépp nekk biir Sénégal mu wala mbiru suñu borom la waaw loolu c'est de la géologie mbiru suñu borom la bohole par exemple euh, Mamel mhm.

Euh, parti bu nekk ak li fa nekk nga dem Tëngéej wala nga dem jam Jamñaajo nga gis ne foofu ay ban la comme li ñuy wax Jamñaajo argile gonflante mhm. donc suuf su nekkee rek ak caractéristique bi mu nekkee danga ko war a saytu pour xam li nga fa nar a teg mhm. boo ko fa tegee lan la nar a jur comme charge ak lan mooy nekk euh, conséquences yi d'accord loolu nekk ay cadre yu am solo ndax dina permettre askan bi seetaan ñu xam ne euh, man mi dëkk Caaroy ak euh, keneen ki dëkk feneen bu ñuy tabax waruñu xool ne plan bi neex na ma rek nga demee ci noonu wara dañoo war a étudier ba xam ba xam la nga bëgg a def ndax xam mën na nekk ca fa nga ko bëgg a def loolu nekk lu am solo mais tey nga wax benn euh, aspect boo xam ne man tey laa koy soog a découvrir mooy le fait que ñu jël suuf si yóbbu ko ci laboratoire bi daal di koy saytu ngir xool man pour man sax ci seen xarañte rek ngeen di ñëwee xool suuf si ngi nii rek mën a wax fu dara mën a nekk ak fu dara mënul nekk loolu di wax ne que ne liggéey bu am solo ngeen di amal laata ngeen di autoriser nit ki pour mu mën a def tabax ba mu bëgg euh, mais tey bu ngeen di saytu loolu euh, ci ñaata fan lay jël ak euh, ñi koy saytu ndax koppar bi dafa yéeg ci ci fay leen parce que dama gis ne que ne ñu bëri du leen ci fekk donc da ngeen accessible lool wala mbir mi dafa compliqué naka la demee. déedéet li ma jàpp man mooy. Mhm. problème de sensibilisation la. d'accord ndax ki nga mi tabax këram. bu xamoon ne géotechnique dafa nekk lu am solo dina njëkkee ci loolu ndax tey xam nga xam nañ kër ni mu mel si Sénégal mm-hmm. accomplissement vie professionnel mooy nga liggéey ba pare tabax sa kër mm-hmm. donc boo dajalee sa xaalis ba mu mat loo mën a tabaxee sa kër nga bëgg ko defar mm-hmm. war nga xam anam yi nga xam ne mooy li gën a li gën a wóor ci li nga war a def pour kër gi boo ko tabaxee mu nekk loo xam ne lu yàgg la donc un problème de communication un problème de législation am tamit. Mhm. ndax y a yu France en la loi bi ñuy wax loi Elan a képp kuy tabax. Mhm. wala vous avez un terrain étude de sol. la terrain zone vous fa tabac, tabax donc loi vous

dañu am ay laboratoire yoo xam ne dañu jënd ay équipement yu xarañ yoo xam ne dañuy def ay test mm-hmm. c'est-à-dire kër gi boo ko naree tabax mm-hmm. dañuy jël ci laboratoire bi la ñuy def test bi pour xam charge bi nga xam ne moom la kër gi nar a indi ñu teg ko ci kaw suuf si xool ci laboratoire bi nan lay doxee d'accord donc lol, nak moy nek li nga xamné en grande nature moy nek ci terrain bi. d'accord xam nga tay xam ba xam accessibilité bi ci yéen ingénieur yi ndax euh, lu yomb la da fay bax ci askan bi xam aussi tamit ndax tay comme comme ci walu comme comme buñ len di fay aussi ndax am fay gëdu cher day day yombal mbir mi parce que ñu bari ci askan bi euh, tay bu fekkee ne la ñuy pour tabax mateewu ko euh, dañuy njortu ne buñu démé di outil ben ingénieur pour mu defal len ben étude de sol da fay gëna metti ci ñom te su boobaa euh, day doy donc en tant qu'ingénieur, peut-être mën nga ñu wax ci accessibilité bi ndax aussi euh, dépendre ci nit ki déjà damay euh, information ci ALBEC li association des laboratoires et bureaux d'études géotechniques. d'accord ñu dañu association bo ñun ñëpp ñi géotechnique. Mhm. pour di waxtaan di par rapport ak technologie pour joxe suñu contribution ci développement dëkk bi donc laboratoire yooyu ñi ngi Sénégal am na ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi fii ils sont établis au Sénégal man fi ma nekk di liggéey ñu tuddee ko BET plus ma fay directeur général di profiter di nuyu sama collaborateur yëpp ñi nga xam ne ñi ngi liggéey foofu ak suñu président directeur général du Ndiir bi nga xam ne moo fondé entreprise bi il vingt cinq ans donc tey dañu nekk acteur bu am solo ci environnement bi. Mhm. bo déggee lu tol ñu naan le centre de conférence Abdou Diouf bi nek ci Diamniadio. Mhm. wala Dakar Arena. Mhm. ay site la yo xamné ñun ñoo def étude géotechnique bi bala projet bi di démarrer. waaye tay dama bëgg euh, joxé Firndel euh, firndeel boo géotechnique du lu jafé ci. euh comme comme d'accord D'arte et Bocholé, honoraire architecte de notre projet, de nous entre 7 et 8 du projet de l'architecte Pudi pour dessiner le plan. Mhm. Géotechnique, si je suis en train avant de faire 1 du projet. Ah. Donc, nous avons fait ce que nous avons fait pour nous. Et l'avantage que nous avons, si on fait cette étude géotechnique, on va gagner le chalice, on va économiser le chalice dans fondation fondations. Donc, fondation, fondations, ce que nous fait, soo defee étude géotechnique boo xam ne jaar na yoon ki nga xam ne mooy def plan yi dina xam exactement fondation yi nan la ko war a defee mhm. donc yenn saa yi nit ñi dañuy jàpp ne euh, jël géotechnicien dafay nekk loo xam ne day gën a cheral sama projet mhm. alors que yenn saa yi coût bi ngay fay pour jël géotechnicien bi ak économie bi ngay am ci sa fondation mhm. boo xoolee ça n'a même pas de amul commune mesure loolu dafa nekk lu am solo Assane euh, xam nga tey euh, ñu bëri ci askan bi ñàkk yenn information yi moo tax ñuy demee euh, mbir mi ak seen xelu bopp ndax daf ci am ñoo xamante di leen nii ay maçon lañ leen di tuddee mhm. ñu leen di nuyu au passage ndax ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu mhm. te kër gu ñu dëkk seen loxo mi ngi ci biir mhm. waaye daf ci am ñenn ci ñoom ñoo xamante ne seen fi toll na ci ne ñoom mën nañu def étude de sol boobu noonu ñoom mën nañu wax sax ki bëgg tabax ne la fii mën nga fi def lii mën nga fi def lee fekk na ñoom loolu du seen liggéey loolu du ñoom ñoo ko war a parce que ku nekk dafa am bu ñu la dénk hmm. boo ca yamee mën na am nga évité bu ëllëgee bu batiment bi defee vingt ans mu indi ay jéeye ci askan bi loo xam ne euh, foo mën a nekk ci àddina sa responsabilité daf cay bokk ndax danga bokkoon ci ñi wax ne lii mën na faa nekk te fekk na loolu mënu faa nekk donc ku nekk nañ ko bàyyeeg métier am su ko defee euh, mbir mi dina mën a mucc ayib te ñoom ingénieur yi loolu moom mooy seen euh, taxawaay hmm. yow nag en tant que géwél xam naa tabax rek ngeen di def noo gisee waxtaan bi ak loo ko bëgg posé comme question. walaay Dieye Massiré Sy Dieye Faty Pelement Ndiaye directeur li mu wax dafa dafa ëmb lépp. Mhm. cin bokkul safin. dëgg la cin bokkul safin. Mhm. sama yaay daana wax ne cin bokkul safin. bu mhm. cin bokkoon safin dooma yàkkal du la yàkkal. te njàng du ànd ak puukare. xam nga étude de sol bi mu wax nii. tey fii Sénégal. sunu catastrophe bi ñu am mooy. amateurisme bi ñuy demee. majeure partie fii fi Sénégal ak ñu bari ñu ngi tabax seen i kër boo doon waxoon lii am na sax ko. nañ am xaalis rek. na mhm. ngay gis ab waaj woo xamante ni commerçant la wala moodu moodu bu am xaalisam ñëw tabax kër. Mhm. def ko R plus set mhm. étudier wul suuf si amul gynécologue amul dara. bu affaire bi ba nit ña faatu mar day taal mu doog comprendre. médecin après la mort lañuy def. te loolu erreur la. kuy tabax sa kër yàlla dénk la xewal mais demal nga seeti benn. ingénieur ñu def de sol gynécologue bi toog ñu la mhm. lii ak lii boo ko defee mhm. parce que comme ni ko expliqué nii man comprendre u ma woon nii suuf yëpp man dama yaakaar ne suuf yëpp foo foo gas rek daal di tabax ndekete xam nga mhm. yëpp am na ci suuf yëpp bokkuñu suufu mamel bi mu wax ni ak suufu kii parcelle bokkul suufu Kër ma Massar bokkul ak suufu Mamel mhm. yooyu yëpp dafa jaral lijjanti mais doo jël sa xaalis rek mhm. tabax naa am xaalis rek bàyyi nit ñi mhm. ci danger xamante ni bu ëllëgee bu njaaxum amee ñoo ñi nga xam ñoo dëkkoon ci kër gi dañuy fay seen xaalis ñàkk seen bakkan loolu dafa jaral lijjanti lii tey ji communication bi muy wax dafa war a jàll dafa dafa war a jàll parce que tey jii gaa yi ay y a beaucoup de gens yoo xam ne nga dal seen koo fekk ay ignorant lañ comprendre uñu non rien

Aziz j'espère que yaa ngi waaj a tabax te booy tabax aussi di nga euh, woo suñu ingénieurs yi ñu defal la mm-hmm. étude de sol mm-hmm. parce que loolooy tax sa bâtiment du am benn risque waaw euh, étude de sol bi dafa daf ci am solo mm-hmm. parce que nit moom li may wax rek ñi ngay saytoo lekk bi dem sa biir noonu nga war a saytoo environnement bi nga war a dëkk tout à mooy li mu wax léegi parce que suuf balaa nga ci tabax war nga saytu pour xam suuf bi naka la mel ak fan la jóge ak la laa ci war a def parce que dafa am suuf yoo xamante ni pour mhm. suufu bay la mhm. am suuf yoo xam ne ni pour dëkk la kon loolu dafa am solo mhm. li may gën a ñaax sénégalais yi rek ku ci nekk li nga qualifié nañ la ko jox parce que nit tey dina qualifié dara ñu jël loolu jox ko keneen ku ko xamul loolu yaa ngi sonal askan wi mm-hmm. donc kon euh, ñu bàyyi ci xel bu baax message bu am solo lay lay joxe mm-hmm. ñu bàyyi ko xel parce que mm-hmm. bakkan moom <laughs> voilà amul amul amul euh, te li ci gën sax mooy euh, tey monsieur Gambi mooy le fait que ñuy bàyyi ba peut-être jéey am sax ñu koy soog a waxtaanee di leen woo ci plateau yi di sensibiliser pour man du lu nekk dañoo war a nekk waxtaan boo xam ne dañuy waxtaan ak askan bi saa su nekk ndax Euh, tey askan bi saa su nekk ñi ngi tabax tabax yi ñi ngi wéy di dem rek euh, koñ boo dugg gis ne que ne nit ñi tabax nañ ba tabax yoon bi nit ñi war a jaar donc tey ji bu fekkee ne mbir mi noonu la demee dañuy dëkkee tamit di leen alerter di leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom di leen wax ne bañ luñ leen ngeen tabax da ngeen a war a tabax parce que ku nekk ci ñun droit la pour mu am dëkkuwaay mais dëkkuwaay boobu nag nan nga ko tabaxee loolu mooy solo si nga xamante ne ni parce que tey nit ngi def dara sax euh, foog ne économiquement loolu mooy tax mu am ci koom mu duré lu yàgg tuuti dina ci perte lépp lu mu ci defoon parce que tey ki bâtiment wam daanu rey ay nit kooku waxuma la perte bâtiment ba sax mais euh, ci biir conscience am sax li koy li koy tënk dafay bari. Mm-hmm. donc lu bari da mën na ko yàqal àddinaam te jàpp ma ne benn sénégalais tey bëgg na am responsabilité wu euh, bakkan bu faatu ci dam mm-hmm. euh, xëy na nag ignorance bi Assane wax mën na ci nekk. Mm-hmm. su boobaa nag dafay jax yéen ngeen toog waxtaan. donc yéen ci biir waxtaan bobu association bobu nga xamné ne gi ngeen def euh, pour xëy na ngeen ci gëna joko jokkoo ci seen biir pour def échange est-ce que tamit bokku na ci seen communication ngeen dem ci vers askan bi pour xamal leen euh, solo seen taxaway ci seen ay bâtiments waaw loolu lu ñu nar a envisager la ndax euh, communication yi mi ñuy def souvent ay mm-hmm. symposium mm-hmm. ak ay rencontre la ñuy def entre professionnel mm-hmm. te xam nga dafa nekk loo xam ne ki nga xam ne profane la nga xam ne du expert ci domaine bi mhm. am na langage boo xam ne moom nga war a tenir pour que mhm. moom mu mën la dégg li mooy li may faral di wax rek suñu tasee ñun entre ingénieur dañu am suñu langage boo xam ne ku ñu dégg day jàpp ne chinois la ñuy làkk ñun ñoo war a dem ci askan wi mhm. am benn langage boo xam ne langage bu simple la pour mën a expliquer nit ñi li nga xam ne loolu lañu ñu war a def loolu nag euh, lu am solo la ndax sensibilisation boobu wax na sànq ni ignorance mhm. ignorance mooy li gën a doy waar ndax amaana am na koo xam ne mi ngi tabax mhm. waaye xamul sax ne war na def étude géotechnique donc information boobu bu jàllul rek mhm. mooy am na problème beneen problème bi am aussi mooy suñu dëkk dañ ko war a euh, réglementation yi foo ñu koy respecter tout ku nekk am nga sa métier am nga tey man ku ñëwoon ne ma dessiner ma plan d'architecte bu sama expertise mënuma ko dama la naan demal seet ki nga xam ne moom la jàng. architecte bi ndax architecte bi jàng na ko xam na nu mu koy defee. Mhm. géotechnique science la da nga koy jàng. école nationale des mines et de la géologie bi nga xam ne moo nekk fii. Mhm. da def cinq ans boo amee bac def cinq ans génn ingénieur géotechnicien. d'accord donc loo xam ne la danga ko jàng pendant des années. Mhm. expliqué nañ la li nga war a def. donc xam nga fi nga war a jaar pour mën ko def. donc tey ñun suñu association bi. Nous ngi euh, envisager de faire une séance de communication mm-hmm. pour que askan bi di sensibiliser par rapport à li xew parce que Euh, bu askan bi xamul information bi. Mhm. forcément du xam nu muy nu ñuy def pour mën a mën a mën a régler problème bi donc loolu lu ñu nar a gën a. Mhm. waxtaanee la sunu biir. Mhm. pour gën a am des séances de communication à l'endroit des populations. c'est parfait euh, léegi tey solo si nga xamante ne nii seen taxawaay am na ko man suma ma koy xayma mooy euh, médecin bi ci biir hôpital bi di saytu malaat yi wax leen seen feebar mën leen a faj waaye su boobaa yéen tamit yéen a ngi koy def autrement mooy di saytu suuf si ngir wax ñu naka dëkk fa dëkk bu mucc ayib waaye di est-ce que dina leen di dal ngeen saytu ba pare wax ni nit ki euh, suuf si lii la la permettre pour nga def ko ci mu jéggi wax def su est-ce da ngeen di am benn recours bu ngeen mën def wala da ngeen di mën topp kooku noonu wala euh, yen bu ngeen ko xasee ba wax mom lu mu def mom la rek mais yéen wax ngeen ko fa ngeen di yem. waaw tey ñun suñu liggéey loolu la c'est-à-dire mhm. euh, client bu bëgg a tabax immeuble. Mhm. ne dama bëgg a tabax immeuble treize étages. Mhm ñu ñëw saytu suuf si jël immeuble bi def suñuy test jàpp ne treize étages yooyu kat bu ñu ko tegee amaana suuf si mën na rës ndax am na ndox wala suuf si baaxul ñun dañuy def rapport dañuy def rapport boo xam ne dañu naan suuf si kat lii lañ fi gis sa bâtiment bi lii nga bëgg def soo ko defee am na almaana am na lii ak lii ak lii mën na ci am ñu def rapport bi jébbal ko client bi client boobu dafa war a dem seeti bureau de contrôle ndax booy tabax dafa am bureau de contrôle boo xam ne mooy joxe assurance. Mhm. kooku dala naan jox ma rapport géotechnique bi bureau de contrôle bu jëlee rapport géotechnique bi xool. Mhm. xool ndax plan yi dëppoo na ak li rapport géotechnique bi wax mu doog a def cachet ne mën ngeen exécuter chantier bi. sous exécution boobu commencé bureau de contrôle di ñëw di chantier bi si chantier bi di vérifier mm-hmm. ndax li nekk ci kayit ndax mën nañ bind dara ci kayit waye li ñu def ci chantier bi mun bañ a donc lool dañ ko wara contrôler mm-hmm. pour vérifier ne li ñuy def ci chantier bi mm-hmm. depo na ak li rapport géotechnique bi wax ñun amuñu prérogative def recours ah. ay kat lañ dañuy dénk liggéey ñu def liggéey jébbal ko ki ñu ko dénk waaye autorité yi ñoo war a am un moyen de de vérification et de contrôle pour que ci chantier yi ñuy euh, bureau de contrôle bi di vérifier ne. Mhm. li wax ne la a liggéeyee. Mhm. la chantier vérification chaque jour dafa am importance. lu am solo la euh, waaye xam naa ne tey dama doon sopp lool nag suñu leen maye woon benn moyen de recours boo xam ne tey euh, peut-être yéen su ngeen demee ba def constat wu nit ki la ngeen ko wax dëppoowul ak la muy def ngeen mën a am fu ngeen ko dénoncer parce que bëri na ci askan bi ñoo xamante ni leen nii tey même su ngeen defee seen étude de sol ba ne ko nga mën a def euh, mën na dem ci ñenn ñi nga xam ne dinañ ko ko nangul dem falsifier mbir mi changer ko def la ko neex te su boobaa jéey yu bëri mën na fa jógee su bëggoon naa tey mu bokk ci yéen ci euh, bu ngeen rombee gis ne loolu mi ngi am ngeen mën ko dénoncer foo xamante ne leen nii euh, ñoom dinañu saytuwaat ba euh, indiwaat ko ci yoon pour mën a aar askan bi donc xam naa loolu tamit bu fekkee ne comme ni ngeen defee association bi liggéey bi war na cee bokk de. <laughs> waaw loolu yëpp législation la. Mm-hmm. xam nga yoon. Mm-hmm. damay wax ni Sénégal mm-hmm. lépp xaatim nañ Euh, daanaka suñu loi yi ak suñu règlement yi mhm. euh, ñi ngi fi bind nañ ko ba pare problème mu application la am mhm. dañu am règle boo xam ne boo saytoo code de la construction mhm. am na lu bëri loo xam ne prévoir na ko léegi li ci des mooy dem au delà de ce code pour mën a vérifier ndax loi ak règlement yi ñi ngi koy appliquer ñun dinañ xool suñu biir association bi nan lañ mën a def pour peut-être joxe suñu contribution. waaye du ñu législateur du ñu pouvoir public. c'est-à-dire que ñun mën nañ alerter joxe ay informations waaye li nga xam ne mooy li yoon war a teg mhm. loolu pouvoir pouvoir yi ñoo ko mën a def waaye ñun mhm. mën nañ joxe suñu contribution ci loolu d'accord ku nekk daal na def sa liggéey <laughs> am na solo lool mi ngi noonu euh, dañu doon am mbégte lool ak contentement dalal ki nga xam ne moom moo di monsieur Niang nekk ingénieur euh, géotechnicien moom bu mag boo xamante ni la nii nit ñi ràññee nañ ko ci xaram xarañteem ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni la nii ma ngi koy def ak ñamu ca àndal euh, waaye dañuy wéy nag daal di dem ci ki nga xam ne moom moo di Moulaye dalal ko moom itam mu nekk jeune créateur boo xamante ni leen nii styliste la ma ngay def euh, ay création yu am solo bu ngeen gisee li mu sol sax jarut ma koy wax ndax di ngeen ko ciy gis mi ngi noonu euh, ñu dem seetaani élément boo xamante ne nii ba tey jagleel nañu ko euh, ndaw ñi nga xamante ne ña ngay wéy rek di entreprendre ay mbir waaye di xool aussi yan moyen la ñuy def ba mën ci génn ñu seetaan ko dellu siwaat ci plateau bi ci complexe bi ci Médina liggéey baa ngi dox ngir yeggale commande client Mamadou Fall mi ko ubbi depuis juróom benni at li ko soxal mooy client bi am mbégte ci li ñu ko ñawal bazin lin soie vax tissu yëpp la ñuy ñaw njàng bi ma jàng Colobane nag dama ko jàng xamu fi jàng bi amul diplôme mais sinon kon dinaa jam am bu mag parce que dama ko jàng ci njàng moo xamante ne nii loolu moo may lii ba soog a soog a ñëw beru mën a ñaw veste mën a ñaw yére olof jàngal naa ci ñu bëri ay ay ci ci ñaw bi mun naa wax ni professeur laa ci benn machine laa commencé benn machine pétale machine pétale ci laa commencé di ñafe di ñafe ba agsi fii musuma am prêt am na ñoo xam duñu ay tailleur dañuy tapp bouton comme bouton yi bouton bouton yu ndaw yi ñooñ ci la bokk ñuy passé ci la ñuy bokk ñëpp dañ ciy bokk de ce fait entreprise bi nekkul lu ndaw. Mamadou Fall moom li mu gëm mooy métier dañu koy jàng. métier ku ko mën soo ci góorgóorloo di nga ci am dara mën nga ci bañ am nag lu ni gaañu la mais mën nga ci am looy dundee su fekkee ni mën nga ko. chaque fête moo may ñawal korite ak tabaski di ñawal samay doom ndax gis naa ne sa bu ñëwee ah bonheur familial daal amul lu ko remplacer te saa mu jógee ci Fall 2 am bonheur familial sama waa kontan, yëpp kontaan moo tax mënuma ko gaaw bàyyi surtout nag loxo bi moom mën na ñëw trop nag <laughs> fii ci Caaroy Gaar Cheikh Sène ndaw la waaye loolu terewu li muy def ubbi na atelier bi ay wer ci ginnaaw waaye mi ngi firndeel client yi ni bu rafet la leen di defal defare ba pare doo xàmmee bii mooy importé wala bii mooy export donc loolu loolu moo importer rek day melni comme importer mo gën mo gën ñew sénégalais yu ba alors que voilà ki bi avancé na légui niveau ñew bi avancé na bu baax légui téré yi dañoo avancé bu baax ci liguey ñu ngi gëstu ñu ngi def ay yenen méthodes yu bari ci liguey donc Fafa so indi sa modèle nak nu mu mënti mel soo ñëwee dañ la ko defaral comme nu nga ko bëggé waaw bon man fi ville bi daf ma sori pour nga am client bu jugee ville ñew fi sax c'est tout un problème parfois da ngay gis nit mu ne li ngay ñew rafet na mais noonu laay def am si mais boo ko waxee lieu bu nga nekk rek day découragé dootul nangoo ba pare fourniture yi ngay bëgg di utiliser doo ko am fii. Castor entreprise bi ñaari téeméer ak juróom fukki nit ñi ngi liggéey liggéeyee. machine bi mën naa dagg ba téeméeri junniy tissu fii nag góor ñi rek lañ fiy ñawal. inspiration bi mooy dama da ñew costume euh, Europe bima nek nekk Italie euh, di ñëw chemise di ñëw robe di ñëw lepp ak yu demee non mais bima ma sé see dama ne mënuma continuer di ñëw la même chose léegi foog mooy créer la nga xamante lu lu lu lu unique la légui nak ci l'a créer costume africain xalaat un peu inspiré wu ci veste yi ma doon ñëw Italie ak jël tissu européen jël euh, un peu sabadoor yi ma don ñëw avant ma daa tukki ma jël ñaar yooyu jël ko couplé ko génn ci costume africain tudde ko diaspora lu yi gën a tuuti moom ci comme boo xoolee ci costume africain yi moom euh, am na nga xamante ni tey diaspora euh, tey dafay commencé ci trente mille ba ba ba cinq mille selon fourchette euh, prix wu nit ki poosu nit ki ak qualité tissu bi ak yu demee noonu loolu moo koy déterminer ndax day am tissu haut de gamme yi nga xamante ni tissu bi rek elle-même dafa cher trop ak yu demee noonu. ay at a ngi nii mode sénégalaise def na ay jéego yu mag ñaw yi ñuy defaree Sénégal dem na ba remplacer ñawu tubaab yu bari yu doon nekk ci armoiru sénégalais yi jaajëfal naa bu wér Kumba Njaay ci élément bu am solo boobu mu ñu defal euh, dem ci suñu styliste yi tailleur yi suñu créateur yi ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne nii moom la ñuy amal euh, tey foog naa sax ku seetaan bi di nga ne suñuy wax euh, consommer local ñun moom la ñuy refléter ndax boo xoolee ci plateau bi ñun ñëpp li ñu sol ay tenue la yoo xamante ni leen nii suñu styliste yi ñoo ko créé muy doon nag lu am solo ndax nee nañu lu waay di wuyoo lu nekk daf ko war a niru loolu moom mooy tax ñu jàppale

Je amé dara te da ngay wali yani, man dama contre euh, importé tu vois dama contre parce que euh, li tuba bi est def man jeune bi def parce que yalla tamit boko gëmé te woko, mhm. ah dina xawé doy de ah, gëm nañu jeune bi jeunesse mhm. mais nan mhm. booster parce que man ne bon boo demee ci exposition foire yi da ngay xam ne bu baax <laughs> jeunesse bi ñi ngi ñi ngi liggéey ndaxte di nga fa fekk xeetu tenue yoo xamante ni nii mm-hmm. bu ne li sénégalais moo ko defar sax daf lay jaaxal ba ci yeneen côté yi li nga xamante ni bon ci suñu jus locaux yi mm-hmm. ay fruits de légumes yëpp fii lañ koy defaree voilà mm-hmm. kon pour man bon ku gis jeune bu bi góorgóorlu comme ñii war da nga la da la war da nga ko war a jàppale jàppale bi mooy lan mhm. la nga doon jëndee ci àll bi mhm. jël ko jox ko ko mu defar ko mhm. nga sol ko loolu ñu ne lii ku ko defar ñu ne benn jeune sénégalais loolu amul lu ko dàq nañ ci bàyyi xel bu baax tout à fait ah amul lu ko dàq te la preuve mooy que ne mm-hmm. tey bi ñu demee ci kaan bi mm-hmm. euh, dañu daan euh, jéggaani ay mbir pour supporter suñu lion yi mm-hmm. euh, ku nekk di wane ci ni nga bëgg a supporter lion yi mais tey ñu dem ba yéen jeune créateur yeeg stylistes yi dugg ci ngir gunge ñu gis nañu kaan bi yëpp yow laa ci àndaloon ci ay création yu am solo mais ci création yooyu tam tey nga sol loo xamante ni avant lekk lañ ci xamoon sànni muy sump bi nga xamante ne tey moom nga def collier moom nga def ci sa yére bi man itam bi ma doon sol euh, suñu mayo yi moom nga ko defee xam nga def ci sa ay peinture euh, créativité boobu noonu say inspiration fan nga koy jëlee waaw parce que li ñuy wax naan euh, boo nekkee fils d'artiste donc mhm. artiste rek nga mën a nekk man li ma gën a dugal ci stylisme mhm. sama papa moo tax ma gën dugg ci stylisme mm-hmm. parce que ci photographe la la la def carrière am boobu na photo noir et blanc la mm-hmm. mais jamono moment yi may toog di xool photo yi mm-hmm. ak solin yooyu ay euh, pantalon bas large tey ku ko sol tey dox ci mbedd bi ñi ñi wokkante la ah ci gars yi la bokk dëgg fekk bon fashion la ñii dañ ko war di sol loolu gën ma attiré ba tax tey lu ma defar rek lu ma gis rek sama xel dina dem ci leneen lu bokk ak ñeneen ñi parce que xooxu sump yi ñu tuddee ko euh, grain de date du désert dama ci defaroon jus parce que man ci sama bopp damay defar transformation fruits de légumes li mhm. ma ci defaree jus ba pare ma ne pourquoi lu tax ma koy sànni du ma ko sànni ci laa xalaat ma ne lii la laa ci war a mën a liggéey Mhm. ma confectionné ci benn tenue mooy tenue bi ma sol. Mhm. am naa ci collier déjà. Mhm. te xooxu sump bi leneen ak leneen mi ngi ci ay secret ñi ngi ci parce que boo ànd moom rek dafa baax. surtout ci cat ak làmmiñ cat ak lu mu dugg lu mu jiitu rek. mu yàqu. dëgg li ngeen gis ci chemise bi aussi. xale yi ko xam bariwul. lamp tempête. lamp pétrole mën naa xam ne cadre yu bari tey fii Sénégal. ci lañ amee seeni diplôme. li ci nekk tissu la batik ñu koy wax cuub mhm. moom laa jël ñëw ko ci chemise bi mhm. ak loxo lu machine laa ko ñëwee loxo laa ko ñëwee donc ça prend beaucoup de temps mhm. euh, mais noonu la liggéey boo ci nekkee fële nga sonn ci pour ëllëg nga mën a xam njariñ li lan la voilà loo doonul taalibeem doo doon sëriñam doo doon sëriñam exactement lii su ma koy liggéey damay ànd ak contenté boo xamante ni nii même bu ma sonnee sax du ma ko yëg parce que euh, fierté la ci man mm-hmm. ma nekk ci côté artisanal d' accord voilà passion ngay démé ci lolu noonu donc tay bëgguna xam sax en résumé parcours Moulay jaar-jaaram lan mo indi déclicu mu ne moom tey styliste la bëgg doon euh, bien vrai que né nga sa papa à la base bokku na ci lila inspiré mhm. euh, mais tay euh, sa papa rek doyul ndax li ngay wax ni jang la mhm. gëstu la ndax looloo tax nga xam njëriñ li ci xoxu sump mhm. njëriñ li ci batik bi nga sol donc yoy noonu yëpp nga xam né xalé yi lépp lu ñuy yëngu aussi dañ ci wara jang ba am ci xam-xam donc déclic boobu lan moko indi ban constat nga def ba dugg ci milieu bi waaw euh, mën naa wax ne boo nekkee ci euh, euh, ci côté bi nga xam si ni côté de culture la mhm. rawatina sa papa nekk saraxule sa yaay nekk xalpulaar mhm. mënoo ñàkk mhm. bëgg culture dëgg ñàkk bëgg culture parce que mën naa xam ne tey Sénégal lii mooy suñu mandarga d'accord ba si suñu mariage yi léegi gis ngeen xale yi ñu ngi commencé soppi solin ñu ngi e, seen yooyu ñu ñu ngi dox e, any time je ne sais mhm. donc ñu ngi dellu cosaan. Mhm. te loolu bu njëkk daawoo ko gis. donc nit daal li nga war a gëm mooy fonk sa sa culture lu am solo la. Mhm. man en personne su may génn sax di dem di e, fenn fa ak fu mu munti doon. lii lay solo ah. oh. ku ma gis daf may laaj waa mais grand li nga sol. foo ko jëlee ak ku ko defar. maa koy defar. bëgg naa ci donc nit da nga war a mën a wane sa bopp foo mënti mhm. dem nan la nit ñi ràññee li ñu lay ràññee mooy lan gëm sa culture mhm. parce que nit boo gëmul amul culture amul dara tout à fait nañu xool suñu voi suñu voisin yi ci suñu wet nii mhm. Mali Côte d'Ivoire ba ci seen bureau yi da ngay gis dañuy sol costume africain def ci ay touche batik yoo xam wala ay pantisé ah pour war na ñoom lii la am. Ah, léegi moom la ñu ngi ci moom. Ah, à cent pour cent ah, gis nga plateau yi euh, vax lañ koy defee xam nga suñu euh, kii ñoo koy defar fii suñu ouvrier yi ñoo koy mm-hmm. defar fii euh, gis nga tamit monsieur ñaam yi moom doy na seede ndax bureau la jógee gis nga ko li mu sol nii. parce que moom sol dafa sol na lu rafet. parce que maa gis ay petites touches xam ne. waaw waaw man moom moom. batik bi meuf bi <laughs>

té loolu suñu environnement bi ñuy dund tay mhm. dafa am lo xamné luñu luñu wara lu la. muy recyclage de tous les matériaux yi ñuy utiliser. Mhm. ndax ñun suñu impact ci planète bi dafa am importance. donc képp ku ne mom ci ci domaine bi mu nekk. Mhm. mi ngi jéem am benn impact bu bu bu positif. sur son environnement. li ma bëgg a yokk mooy suñu culture. Ah. on doit être fier de notre culture. surtout bu njëkk booy ñëw ci plateau yu mel nii. da nga naan costume laay costume. européen mhm. laay sol mhm. waaye tey comme ni nga ko waxee cent pour cent costume mhm. africain la ñu sol tey ñu ngi koy yóbbu ci bureau yi ñu ngi koy yóbbu ci manifestation yi sunu njiit yi ñu ngi koy sol donc ñun aussi en tant que jeune dañu war a promouvoir suñu culture tout à fait suñu demee man su ma tukkee su ma demee di gis ay autorité wala may dem feneen costume africain laay sol parce que il faut être fier de ça li nga wax suñu culture ku amul culture amuloo dara wallaay kuy dem ba dem ba xamatoo foo jëm. waaw da ngay dellu fa nga jóge mooy dëgg. parce que gis nga lii la xam nga li tubaab naan la simplicité c'est de l'art. Mm-hmm. mais xoolal li man xam man maa ngi doog a bàyyi xel ni sumtu sax la la def la def ci ci yëre yi. dëgg la xam nga lii c'est très joli. Mm-hmm. te complexé baaxul yow maman. dëgg la xamul lu ñu sonal ñun africain mooy mm-hmm. complexé. démb maa ngi seetaan Côte d'Ivoire Coupe d'Afrique bi. am na fi benn benn grand bu sol genre yëre olof la ko nu bi ñuy joxe avant ñuy joxe coupe bi. laxasaay dafa laxasaay xaw lu mu def noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mu dama dama boo koy xool bu doon fii la Sénégal dañ naan dafa dof. Mm-hmm. te cosaan dafa am solo. dëgg la nit ki mais boo fonkul say cosaan ku lay fonk. tubaab loo ko mën a jaay. bu dee costume moo la dàq costume. Mhm. bu dee leneen bu dee noonu. Mhm. bu dee yow sa culture rek nga ko mën a jaay. tout à fait bu nekk complexé. Mhm. kan lii mu def nii c'est très li dafa rafet li dama bëgg man. wallaay dafa rafet. Ah. dafa rafet euh, euh, li ci gën a neex tamit mooy c'est accessible. c'est à la portée de tout le monde mooy que ne tey euh, tissu yu ñuy utiliser tey nit mënatul wax ne que ne parce que sama koom-koom fii la toll mënatuma solo tey da ngay gis benn tissu boo xam ne nit mën na ko jëndee 3000 francs Euh, ci PC bi wala feneen mais euh, silice yi ñawee ko de telle sorte que da ngay foog ne lii peut-être cent cinquante mille lay jar parce que tamit wa exactement c'est ça juste pour wane ne que ne xëy na euh, techniquement léegi sax sénégalais dañoo mën sañse ba nga xam ne ku ci nekk si ñoom rek xam nga na ngay nduggee sa marché maanaam ca sa koom fi mu yem yow di nga xam naka ngay sañse ndax bu ñu évaluer tey man li ma sol yëpp du mat quinze mille francs te yaa ngi koy sol ñëw def ci plateau am na ñoo xam ne dañ koy gis ne dafa rafet mm-hmm. te man it jàpp naa ne dafa rafet moo tax ma sol ko euh, te maa ngi naan quinze mille matul sax dix mille mm-hmm. donc yooyu noonu yëpp dafay wane ne que ne léegi se soxlaatul comme bu bari mm-hmm. mais xel moom mooy sañ se jàng du ànd ak pukkare métier du xëy xëy neex dëgg la yaay bul mata tàmmal xaalisoo mhm. yar ma ci muñ a teey la njàng du ànd ak puukare mhm. métier du xëy-xëy neex yaay bul ma tàmmal xaalisoo yar ma ci muñ a teey macha allah def ni mhm. da ko jàng ba ko xam ko parce que nag wax la mënul doo ko tari tout à fait soo ko bëggoon def loo mot da nga may indi problème dëgg la mais da ko patience su créé lii sax da nga amul yow ci bopp <laughs> man ko ngi noonu euh, su ko defee mu lay xam naa ne nag dañu lay dalalaat mhm. euh, parce que wax nañ ko bëri na ci mbir yoo xam ne yaa ngi cay yëngu ba ci transformation produits locaux yi nga xamante ni leen nii euh, tey ci nga inspiré woo ba defar sump bi mu doon collier ak leneen ak leneen loolu bëgg nañ la ci invité xool en tant que jeune naka nga ciy liggéeyee ba associé créer si yeneen jeune mhm. ba tey mu jur entreprise boo xamante ni leen nii euh, bëgg nañu mu gën yaatu parce que mhm. comme li may wax rek euh, tout le temps euh, RTS li mu fi nekkee mooy jàppale ndaw ñi ba ñu suqaliku ca la ñuy yëngu mhm. donc loolu nekk lu am solo donc tey ci sa biir dans l'avenir lan nga xalaata def wala lan nga bëgg a def loo xam ne ñi ngi ciy xaar Moulay lu bokkul sax nag ak wàllu stylisme bi ah Moulay daal benn <laughs> entrepreneur la boo xamante ni xelam ci li nekk dafa saabu sax dama koy defaral sama bopp ay saabu yoo xamante ni nii li ma koy defaree yëpp ci gàncax gi laa koy amee ay saabu xasum xay saabu fuddën saabu ndiir meew gile meew béy lépp loo xalaat rek ci suñu gàncax gi rek man dama koy defar ay savon kooku xelam mi ngi ci leneen dëgg li ko waral mooy que li ñu yor gàncax gi ñu yor laa bañ ñu sànni ko sump nga defar ci jus ba pare nar ko xoox yi nga nar ko sànni mais xoox bi vertu yu ci nekk xëy na amaana na sax moo ëpp li nekk ci fruit bi tout à fait mu laay daal xelam ci li mu nekk dafa bari ñaan na yàlla mu dem ba am ay entreprise yu transformé ay jus yu xamante ni nii bon ay boisson yoo xamante ni lépp suñu suñu environnement lañ koy amee 100 pour cent locaux mu laay ñaan na tamit aussi ñu koy tudd fu fu ci àddina bi ci côté mode donc foofu laa teg suma tànk di mm-hmm. ñaan yàlla aussi mm-hmm. euh, fépp fu ma xam ne maa ngi koy séntu rek suñu borom yombalal ma ko te musal ñu ci cat ak nañu yoon bi mm. léppay ñëw incha <laughs> même temps di mm-hmm. lancer di lancer benn message suma mbokk entrepreneur yi di leen wax ne fa nekk milieu boo xam ne si nii gaawul du teg da ciy dugg tey suba mu sotti déedéet nekkul lu yomb de mhm. da ngay dem ba benn moment boo xam ne da nga naan man xanaa yàlla daf ma fàtte mhm. yàlla fàttewul kenn de mhm. déedéet kii la rek ku nekk sa numéro bu jotee da ngay ñëw tout à fait ah, nag yàlla nag boo ko gëmee da nga koy wóolu surtout nit dina nekk ci milieu bi di jugoo ko daanu dinañ dem ba ne waaw moom de ñaata at mi ngi ci gisu gisuñu lan la mais du noonu dina ñëw ndar xëyul sotti toq toq moo gën yuret moom la ma sama bàyyi di faral di wax incha allah euh, alhamdulilah sante yalla mhm. mais dañuy ñaan di gën mhm. avancer. Mhm. pour mëna a booster suñu liñu am li ak liñuy défar defar. Euh, di lancer ben message aussi ci euh, gouvernement bi. ci ñeneen ak ñeneen. jeunesse bi soxla nañ ay financement pour liggéey. Ah, surtout pour te dire man actuellement sama kër lay liggéeyee. amaguma place. donc euh, maa ngi def vente en ligne. te ñaan naa yàlla aussi am. place ñi ñuy ñëw di ko découvrir di xam lan moo fa nekk. inshallah loolu lépp dina ñëw incha allah euh, mi ngi noonu li ñu koy waxee rek xëcc bu daggul dikk ah, euh, donc dina ñëw yoon bi xaaleeku na te lépp dina la fekk si incha allah li am solo rek mooy am jom hmm. am ambition te gëm suñu borom wóolu ko te yaa ngi ci yoon boobu yow ak jeunesse bi nga xamante ne yéen a ngi entreprendre ay mbir hmm. donc le reste yàlla dina ko indi ci kàttanam ak baaxam te dinañ la ci gunge tamit ah, euh, dans cinq ans rendez-vous dans cinq ans te bu boobaa dinañu évaluer nga xam hmm. ne toll nga ci beneen niveau ci kàttanu yàlla yàlla nañu fi dund gi bàyyi ah, ma bàyyi nga tàggatoo ko téléspectateurs yi Euh, voilà mhm. maa ngi euh, tàggatoo di rafetlu aussi. Mhm. invité bi ñu ma invité tey ci plateau bi. Euh, di nuyu aussi directeur bu kër gi. Mhm. di nuyu bépp ndaw boo xam ne mi ngi liggéey ci kër gi. donc li daal lu am solo la parce que ay jeunesse aussi boo leen wanewul. amul amul njariñ. da am lu ma fàtte tamit sama mbokku xale yu góor yi. yoon bi ñuy jël muy yoonu ndox mi. ku sañoon tey di nga jàppale say waajur mhm. mais am na yoo xam ne ni dama ne man xarul la waaw ah, parce que ngay dugg ci ndox di dem pour wuti ji xamoon ndax da nga àggam du àgg avion sax mënoo assuré na man dina àgg mhm. mais am na loo xam ne xarulaa ko mën a tuddee mhm. nañuy bàyyi ba yàlla yombal seen dem ñu dem ne am na noo demin boo xam ne man je suis pas d'accord en tant que jeune di leen ñaax ne nañu góorgóorlu fii ñu nekk ba leneen ñëw incha allah nañu bañ a yàkkamti. di euh, nuyu aussi sama tonton yi. Uh-huh. voilà ak sama géwél bi. Uh-huh. Ah waaw xam naa <laughs> incha allah ah si pourquoi pas. <laughs> mënta ñàkk <laughs> donc voilà merci beaucoup Moulay amoon nañu contentement recevoir la dinañ la dalalaat ci plateau bi. gën koo waxtaanee ci yeneen. Euh, waaye Assane lay bàyyi moom itam mu tàggatoo te téléspectateurs yi. si Ndiaye Fadi Penda Mbaye Ndiaye kenn du yow ci mim réew. Hmm. yàlla yàlla guddal rek. amiin yàlla sàmm ñu. Hmm. Euh, di kontaan ci directeur li mu wax. surtout directeur li mu wax ni dafa am solo dañ ko war dañ for am communication dafa war a jàll parce que nag réew mii ñuy tabax ay nit nit ngi di ci faatu mhm. loolu àq la de mama tooñ la de mhm. nit fay xaalisam te fa mu mhm. dëkk wóorul mu màbb ay doomam dee baa moom mu di faatu loolu nag lu ñu ci war a door nañ cee jug di ko xool communication bi jàll ñuy xam jeune collègue ak lépp kii nga xamante ni moom yow daal ju dékodo <laughs> bi moom foo ko jëlee ah waa Aliou si waa de wax génie technique damaa juum di yëfi jëwal dégg nga kii nga xamante ni moom mooy suñu jarbaat di Abdoul Aziz nga xamante ni li mu defar dafa rafet tam ñu jàppale ko yokk cere doolu ñeex ku yokkul yaa wàññi ku wàññiwul yaa yokk wallaay man dama laa bëgg maa la gën <laughs> yow itam ma bàyyi la nga tàggatoo di fàttali téléspectateur bi yow yaa nekk euh, suñu ingénieur euh, géotechnicien bi ñu dalaloon tey ngir waxtaane étude de sol yu am solo yi nga xam ne yéen a ngi koy amal euh, jëmale ko ci tabax yi nga xam ne moom la ñuy dëkkee wala ñu fay nekk di fay liggéeyee waaw moment dama lay remercier ci invitation bi nga ñu jox tay hmm. ñu am possibilité ñëw waxtaan ci li nga xam moy mooy géotechnique. moy hmm. li may wax souvent les travailleurs de l'ombre hmm. ndax ñun dañuy liggéey te fësuñu. waaye waye amna solo. de temps en temps ñu joxé suñu cadeau léegi moom dañ leen bëgg a nak nag. waaw expliquer ndax da ngeen am solo ci mbir mi waaw ndax géotechnique yemul rek ci tabax keur dëgg la boo xoolee tali yi boo xoolee pont yi. boo xoolee euh, bâtiment industriel yi lépp looy def géotechnique daf ci war a am yoon Mm-hmm. donc tey kontaan nañ lool ci li ngeen ñu joxee kàddu bi. Mm-hmm. ñu mën a expliquer suñu profession. Mm-hmm. en espérant que dina am yeneen rendez-vous yoo xam ne ñu waxtaan ci yeneen domaines yoo xam ne géotechnique dina ci yëngu aussi. incha allah noonu sax lay daal di demee dinañ leen fi dalalaat ngir waxtaanee leneen waaye dinañu dalal ñeneen tamit yeneen i experts ngir waxtaanee lépp lu concerné bâtiment euh, parce que mbir mi processus la te ku nekk dafa am wàll boo xam ne moom lañ la dénk donc dafay baax ñoom ñëpp ñu ñëw euh, ci plateau télé yi wax seen njëriñ su ko defee askan bi bu ñuy tabaxat yi dinañu leen woo ngeen ñëw euh, wax leen yéen itam xam-xam ba nga xam ne jàng ngeen ko ngeen mën ko partager ak ñoom euh, ci biir loolu ma remercier Kumba Xeex moom nga xam ne sama sista d'amour la wax dëgg yàlla di si jàpp bu baax a baax a baax lépp lu may def sama bopp bi rek moo koy defaral euh, disponible gentil ma koy remercier bu ngeen demee usine benn tali ca pharmacie ba Kumba Xeex lépp lu ngeen bëgg ci lu nice rek da ngeen ko fay fekk depuis bébé de l'année ba léegi moo ma yor ci coiffure donc merci beaucoup sista d'amour ngeen mën ko jot ci 77 654 07 79 77 654 07 79 Kumba Xeer usine benn tali dem leen ngeen seeti ko mais aussi di jaajëfal ak di ziar di nuyuwaat suñu mbokku laayeen yi nga xamante ne leen nii weekend passé ñoom itam ña nga doon amal euh, lu am solo loo xamante ne askan bi yëpp gis nañ ci seen bopp ñaan yañ fay amal ak euh, jàng yañ fay def yooyu yëpp bokk ci lii tax euh, jàmm di nekk ci réew mi donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax demoon nañu fa def bu am solo mais ren nag ni mbir demee moo tax waaye ñu ngi leen di jaajëfal bu wér a wér remercier Thioro Samb ci euh, réalisation bi aada si maquillage bi euh, ñoom euh, aada beneen bi tamit